ziar baax di rafetlu question bobu ngeen laaj aduna euh, da baxo jamono fu jamono tollu xeyna sax mën nañ ko setlu ci société sénégalaise bi ñu nek ba fimne nit ñi ñi ngi jema out politique bu bax ngir lan ngir mëna am dundu go xamanteni day ak li nga xam modi bëgg-bëggu nit ñi manam pour ñu mëna am ben projet de société bo xamanteni ni dinañ ci sentir seen bopp loolu nag euh, moo tax euh, nitu yàlla yi ak philosophie yi ñu xam sax ci àdduna ji ci gën a bari euh, daan nañ xar seen tànk tubéy pour mën a créer nit ñi société boobu ngir mën cee nekk mën cee dund Sëñ Tuubaa bokk ci ñoom xëy na nag fii dañuy wax Sëñ Tuubaa en tant que nag wax dëgg yàlla borom xam-xam ak ay ñu fekk ay borom xam-xam yu bind moom mu ñëwit bind xëy na dimension boobu lañu la ñuy waxee pour ñu gëna mëna comprendre li nga xamanteni modi Touba le cas actuel bi melni ak lutax melni mu ci histoire euh ñi jàng philosophie dinañ xam li may wax aussi ñi nga xam jàng nañ tamit histoire yonent yi aussi mhm. dinañ xam li may bëgg wax mhm. ndax buñu xolé ci ay Platon ay ay Averroès mhm. ay num mu Farabi ay Hegel ñom ñu bëree bare bind nañ ci projet de société. Mm, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau mm-hmm. contrat social. Mm-hmm. ñoom ñëpp kenn ku ne cité atlantique. Mm-hmm. ñoom ñëpp en tout cas ñi ci gën bari ci philosophie yi nga xamante ni société doon nañ leen déglu. bind nañ ci projet de société bon xamante de dañu mën am. cité parfaite. cité bon xamante day idéal. ba nga ni nit ñi. politique bu normal la ñuy dund. maanaam cité boo xamante ni euh, ak maanut dafay am. kenn ku ne sentir sa bopp ci li ngay def. di gis sa bopp ci cité bi. Euh, nit en tout cas mu nekk cité boo xam daal day parfaite. kon loolu du lu du lu bees xëy na ci ci àdduna mm-hmm. aussi bu ñu xoolee tamit ci histoire yonante yi am na lu ñu naan suñu borom di wax irama zaatil imaad mm-hmm. mm-hmm. mu ni kon nañ ko tabaxal àjjana ci kaw suuf defar ko bunt ya nekk or fenêtre ya nekk or dex yi nangam nangam en booy dox sax ci ay or ngay dox ak i jamaa ba mu ko bi ba mu ko defaree ba war dëkk pour mu war a dëkk ci dëkk ba vingt ans la préparé pour mën a dem ci dëkk ba kon dëkk boobu rëy na waaye ko alak mok mok dëkk ba suñu borom sax dafa tàgg dëkk bi iran zati nema allati lam yukhlaq misluha fil bilad kon lolu projet de société bobu yag na ci aduna buñu xolé xoolee ibrahim alayhi salam aussi Màkka xeyna li fa nek mën nañu wax ci barke Seydina ibrahim la ndax dafa jël Seydina ismaeil yóbbu ko fa mu nek aw khur rabbi inna asantu min zurriyati bi waadin ghayri zi zarin inda baytikal muharram dama dëkk fo xamanteni dara mu fa Mm-hmm. waaye nag yàlla maa ngi lay ñaa nga def ko bu nekk dëkk boo xamante ni dëkk bu xéewale la mm-hmm. suñu maam Seydina Ismaïl alayhi salaam mm-hmm. lam doon jël tànk ba di di xoos tànk ba rek ndoxu ndoxu zam-zam boobu fa ball rek loolu doo waral rek nit ñi daaw ñu sax romb fa ba di fa far yàlla ñu di fa mujj gi ñu def ko ab marché mujj gi ñu def ko ab dëkk barke boobu nag mooy dox ba fi toll nii nga xam ne nit ñi partout dans